ajjuma 28 avril 1916 ajjuma 28 avril 1916 la kilifa yi nekkoon ci miléem réew te jiite woon ko ñu tudde woon leen colonialiste yi génne woon benn arrêté tudde ko conseil consultatif pour les affaires islamiques de l'Afrique occidentale française ñaar fukki kilifa yi diine nag la ñu tànnoon ci Afrique de l'Ouest mu ñi séqoon AOF ci Afrique occidentale francaise te booba juróom-ñetti réew ñoom ñoo séqoon AOF boobu ci biir juróom-ñetti réew yi ci juróom-ñaar ya tànnoon nañ ci lu tolloog ñaar fukki doomu aadama yu ñuy boole ci kuréel googu di kuréelu conseil consultatif boobu te kuréel ga nekkoon ab arrêté bu nguur gi génne woon wala bu autorité colonialiste yi génne woon kuréel ga nag lañ ci jublu woon tubaab bi daal ñoom dem nañ ba seetlu ne ginnaaw bu ñu duggee Afrique ak léegi lépp lu aju ci diine te africain yi di ko def ñoom tubaab yi ñoom ñoo ko doon contrôler te loolu itam nag lañ bëgg a dindi taxawal nag génn kuréel goo xam ne nii daal danañ tànn ay kilifay diine yoo xam ne nii ñoom daal dañ leen di bàyyee lislaam ji léegi ñoom koy doxal ci afrique occidentale ñaar fukki kilifay diine yooyu nag saa ñu bëggee dogal dara ci diine ji ñoom ñooy waxtaan suñu suñ waxtaanee ba juboo nag lépp lu ñu tënk nag ci la afrique gépp nag di sukkandiku ci wàllu diine moo taxoon tubaab bi def nag benn arrêté tënkoon ko ci le 28 avril 1916 muy conseil consultatif pour les affaires musulmanes de l'afrique occidentale française di AOF ndax tubaab bi kat bi mu duggee afrique ak léegi lépp lu fi aju ci wàllu diine moom moo ko yor ndax taxawal na fi sax ay kuréel ndax école bi njëkk am ci ndar tubaab bi ko tabaxoon ña fa doon jàngale itam moom moo leen jëloon di leen saytu jàkk ji njëkk a tabax itam ci ndar itam tubaab bi moo ko tabax doon ko contrôler lii di ajug màkk gi itam tubaab bi moo ko doon saytu ak julli tisbaar deux heures et quart ba ci li ñu tuddee commissaire au na muy ku ñu fal muy gérer wàllu aj gi loolu itam tubaab bi moo ko fi indi woon kon bari na ci wàllu diine lu fi tubaab bi indi te ci biir école yooyu ak jàkka yooyu tubaab bi moom moo doon fal ka fa nekk di la fal ka folli nga nekk comme fonctionnaire loolu bàyyi kilifa diine yi ñu doxal seen wàllu diine comme niñ ko sentire loolu itam moom moo taxawoon mu taxawal kuréel googu ñu tudde woon conseil consultatif ngir ñuy saytu wàllu diine ji ndax jàkk bi njëkk a tabax ci Sénégal te tubaab bi joxe woon autorisation bi ñu ngi ko tabax ci atum 1848 ci dëkk boobu di Ndar Géej kon wàllu diine moom tubaab bi yàgg na cee teg loxo ci réew mi di Sénégal wala ci Afrique jàkka jooju itam imam bu fa mas nekk itam nguur gi moo jiite itim nguur gi moo la fa teg grande mosquée bu ndakaaru itim kasaalika madrasa boobu tabaxoon itim ca ndar ngir muy jàngale araab itim kasaalika ak yeneen ak yeneeni kuréel yu diine képp ku fa falu nguur gi moo la fal loola lu ci bari autorité coloniale yi ñoo ko fi bàyyi loola nag moom mooy wéeni ba nëga ni moo tax dakaar di julli tisbaar bar heures et quart commissaire au pèlerinage am imaamu grande mosquée am ak yeneen ak yeneeni kuréel yu nekk ci réew mi te yëngutu ci wàllu diine nguur gi mooy fal lee tubaab bi moo ko fi bàyyi boole ko ci afrique nag bépp kilifa diine bu leen fi neexul ñu faagaagal la moo tax bari na kilifa diine yu baree baree baree bari ci réewu afrique yi tubaab bi ñoo leen sànk taalu daara yu baree bari itim tubaab bi moo ko fay ndax afrique tubaab bi moo doon xool ku ko neex ak na ngay doxale ku ko neex nag mu bala ngay buur di bumi ku ko neexul nag mu jëflanteeg yow soo dëgëree mu faat la loolu nag la tubaab bi xamoon ne erreur la loolu moom moo taxoon mu sélectionné ñaar fukki kilifa fal leen ñu wóote ko ci wàllu diine ji mu tudde leen conseil consultatif muy kuréel guy saytu wàllu diine ci afrique occidentale francaise ngir tubaab bi man cee raxasu kuréel googu nag ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim boole woon nañ ko ci muñ ci ñaar fukki doomu aadama yiñ tànnoon ci juróom-ñetti réew yi séq afrique occidentale française ñu tudd leen AOF juróom-ñetti réew yi nag juróom ñaari kenn ku ne amoon nga ci membre yu bokku ci conseil consultatif boobu membre bu ca bokk kon juróom-ñaar yi ci juróom-ñett yi am nañ ay membre ci conseil consultatif boobu muy arrêté bu tubaab bi defoon ci le 28 avril 1916 juróom-ñetti réew yi séq AOF muy Mauritanie Sénégal Guinée Conakry Soudan te léegi ñu tuddee ko Mali Côte d'Ivoire Niger ak réew mi di Dahomey Dahomey nag moom mooy Bénin jamono ji ak Haute-Volta nag moom mooy Burkina Faso jamono ji juróom-ñetti réew yooyu nag ñoom ñoo séq AOF muy Afrique occidentale française ci biir juróom-ñetti réew yi nag juróom ñaari am nañ ci ay membre muy Sénégal Mali Mauritanie Guinée Conakry Niger Côte d'Ivoire ak réew mii nag di Dahomey Dahomey nag mooy benn jamono ji juróom-ñaari réew yooyu nag ci juróom ñetti yi ñoom ñoo am ay membre ci conseil consultatif boobu nekk arrêté bu autorité coloniale yi fi nekkoon signé woon ci le 28 avril 1916 liste ba nag nii la tëddee muy ñaar fukki kilifay diine yu ñu tànn ci juróom-ñetti AOF te juróom-ñaari réew ya am ca ay membre Cheikh Sidiya mi ngi dëkk ci dëkk bu tudd Boutlimi Boutlimi mi ngi ci réew mi di Mauritanie kañu nommé muy ñaareelu membre ba mi ngi tudd Cheikh Sidiya ba tey mi ngi dëkk ci dëkk bu tudd Ofra Ofra mi ngi ci réew mi di Mauritanie numéro 3 ba mi ngi tudd Ahmadou Mokhtar mi ngi dëkk ci dëkk bu tudd Bogué Bogué mi ngi ci réew mi di Mauritanie réew mi nag di Mauritanie ñetti membre yooyu la am ci conseil consultatif bi ñaareelu réew bu bokk ci conseil consultatif boobu nekk arrêté bu tubaab bi defoon ci le 28 avril 1916 ñaareelu réew bu bokk ci conseil consultatif boobu moom mooy Mali muy numéro 4 bi mu ngi tuddoon Abdou Abbas Ahmed Baba mi ngi dëkk ci dëkk bu tudd Tumbuktu Tumbuktu mi ngi ci réew mii nag di Mali juróomeelu doomu aadama bu bokkoon ci conseil consultatif boobu mi ngi tuddoon Ahmed Ben Youssouf professeur la woon ci école buñ doon wax école madrasata bu nekk ci dëkk boobu di Tumbuktu te nekk itam ci réew moomu di Mali ma yooyu rek la amoon ci conseil consultatif bi ñetteelu réew nag bu bokk ci conseil consultatif bi te tubaab bi nommé woon leen ci arrêté 28 avril 1916 mooy réew mii nag di Niger muy juróom benneelu doomu aadama bu bokk ci conseil consultatif boobu sii Sidi Ould Ousmane mi ngi dëkk ci dëkk bu tudd Walata Walata mu ngi ci réew mii nag di Niger ginnaaw numéro 6 boobu nag dëkk nag ci Niger Niger nag ñetti doomu aadama la ci am waaye ca liste ba nag nañ leen binde toftale wuñ ko ci numéro 6 numéro 7 numéro 8 ginnaaw buñ nomee numéro 6 bi tam dëkk Niger ci biir liste ba nag numéro 19 ba lañ indiwaat ko dëkk Niger ak numéro ba kon lool moom moo tax itam ñu bëgg leen koo indilee nañ ko binde woon ca liste ba moo tax numéro 6 bi Niger la dëkk waaye numéro 7 bi nag ci réew mii nag di Sénégal la dëkk kon danañ ñëw ci ñaari membre yi des ci réew moomu di Niger ca bu ñuy matale ñaar fukki doomu aadama ya ndax position 99 la ca nekk ak 20 kenn ki ci numéro 6 bi la nekk ñeenteelu réew nag bu bokkoon ca conseil consultatif boobu mu nekk arrêté du 28 avril 1916 ñeenteelu réew ba nag mooy Sénégal juróom-ñaareelu doomu aadama bu ñu nomee ci conseil consultatif boobu moom mooy ku ñuy wax maam Cheikh El Hadji Malick Sy dëkk nag ci dëkk bu tudd Tiwaawoon Tiwaawoon nag mi ngi ci réew mii nag di Sénégal juróom-ñetteelu doomu aadama bu ñu nommé ci conseil consultatif boobu moom mooy ku ñuy Touba Seexul Xaddim mi ngi dëkk nag ci dëkk bu tudd Jurbel Jurbel mi ngi ci réew mii nag di Sénégal numéro 9 bi mooy ku ñuy wax ay nii na sekk ab xaali la woon dëkk itam ci dëkk bu tudd Ndar Géej Ndar Géej mi ngi ci réew mii nag di Sénégal numéro 10 bi mooy ku ñuy wax Alioune Dieye moom itam ab xaali la woon dëkk nag ci dëkk bii di Ndakaaru Njaay Ndakaaru Njaay itam ci réew mii nag di senegal la bokk numéro 11 bi mi ngi tudd Fodé Kajilu mi ngi dëkk ci dëkk bu tudd Bandiagara Bandiagara gi nag mi ngi ci région région de Sédhiou Sédhiou mi ngi bokk ci réew mii nag di Sénégal kon Sénégal juróomi doomu aadama la ci amoon juróomeelu réew nag bu bokkoon ci conseil consultatif boobu moom mooy réew mii nag di Guinée kon fukkeelu doomu aadama bi ak ñaar ci réew mii nag di ginnee la jóge mi ngi doon wuyoo ci tur wi di Karamoxo Jali Karamoxo Jali mii nag mi ngi dëkk nag ci dëkk bu tudd Timbo Timbo nag mi ngi ci réew mii nag di Guinée numéro 13 bi mi ngi tudd Thierno Alioune Daba Diagne Thierno Alioune Daba Diagne mii di numéro 13 bi mi ngi dëkk nag ci dëkk bu tudd Labé mi ngi ci réew mi nag di Guinée numéro 14 bi mi ngi tudd alfa Ahmadou Thiam Alpha Ahmadou Thiam mii nag mi ngi dëkk ci dëkk bu tudd Dingiraay Dingiraay mii nag mi ngi ci réew mii nag di Guinée numéro 15 mi ngi tudd Fodé Ousmane Fodé Ousmane mii nag mi ngi dëkk ci dëkk bu tudd Kenja Kenja mi ngi ci réew mii nag di Guinée ba tey numéro 16 bi mi ngi dëkk nag ci réew moomu di Guinée mi ngi tudd Karamoxo Ahmadou Karamoxo Karamoxo Ahmadou Karamoxo mii nag mi ngi dëkk ci dëkk bu tudd Kanka Kanka mi ngi ci réew mii nag di Guinée ba tey réew mii nag di Guinée mook Sénégal ñoo tolloo ay membre ci conseil consultatif bi muy juróomi doomu aadama la ci am kon mook Sénégal ñoo ci tolloo ndax Sénégal itam juróomi doomu aadama la ci amoon juróom benneelu réew bu bokkoon ci conseil consultatif bi te amoon ay membre ci arrêté 28 avril 1916 mooy réew mii nag di Côte d'Ivoire muy fukkeelu doomu aadama bi ak juróom ñaar yu ñu tànd ci conseil consultatif boobu ci réew mii nag di Côte d'Ivoire la dëkkoon ñu ko doon wax imam Kujaa Kimit imam Kujaa Kimit mii ngi dëkk ci dëkk di Côte d'Ivoire réew mii di Côte d'Ivoire benn doomu aadama dong nag la amoon ci conseil consultatif bi juróom-ñaareelu réew bu bokk ci conseil consultatif boobu mooy réew mii nag di Bénin te fukkeel beeg juróom-ñett nag jóge ci réew moomu di Bénin ñu ko doon wax imam Aricho imam Aricho mii nag mi ngi dëkk ci dëkk bu tudd Porto Novo Porto Novo bii nag mi ngi ci réew mii nag di Bénin fukkeelu doomu aadama bi ak juróom-ñett ci réew mii nag di Bénin la dëkk tudd imam Aricho loolu mooy juróom-ñaareelu réew consultative boobu nekkoon arrêté bu autorité coloniale yi arrêté woon signe ko ci le 28 avril 1916 muy taxawal genn kuréel goo xam ne nii day saytu wàllu diine Afrique occidentale te kilifa diine yi nekk nag ci réew yooyu nag ñoom ñoo koy saytul seen bopp di xool fan la diine ji tollu ak di ko sàmmaka def ay réunion ngir nag tubaab bi génne loxoom ci diine ji waaye réew moomu nag di benn benn doomu aadama rek la ci amoon muy fukkeelu doomu aadama bi ak juróom ñett ñaar fukki doomu aadama lañ tànnoon waaye fukkeel bi ak juróom-ñeent ak ñaar fukkeel bi ci réew mi nag di Niger la ñu bokk ndax Niger ñetti doomu aadama la ci amoon waaye ci liste bi ñu bindoon ñoom tubaab yi ñetti doomu aadama yi ci Niger amoon toftale wuñ leen ci benn place dañoo def juróom-benneel bi dëkk Niger fukkeel bi ak juróom-ñeent ak ñaar fukkeel bi dëkk Niger moo tax ñaari doomu aadama yi mottali kuréel gi ay doomu Niger lañ mi ngi tuddoon Malam Charak Nacha mi ngi dëkk ci dëkk bii di Gender Gender nag mi ngi ci réew mii di Niger ñaar fukkeelu doomu aadama li conseil consultatif boobu ci réew mi itam di Niger la dëkk mi ngi tuddoon El Hadji Islamine El Islamine mii nag mi ngi dëkkoon ci dëkk bu tudd Gender Gender mi ngi ci réew mii nag di Niger loolu mooy ñaar fukki doomu aadama yi ñu nommé woon ci conseil consultatif boobu te ci biir ñaar fukki doomu aadama yooyu nag ñu ngi leen tànni woon ci juróom-ñetti réew yi séq AOF te ci biir juróom-ñetti réew yi juróom-ñaaree rek ñoo ci am ay membre mennum Burkina Faso rek moo ci amul woon kenn ku ca jógewul woon ci kuréel googu ñoom ñaari kenn ku ne nag amoon nga ci ay membre arrêté boobu autorité coloniale yi defoon ci le 28 avril 1916 bu fekkoon na jàll na maanaam kilifa diine yooyu ñu tudd nag ñoom ñooy saytu nag diine Afrique occidentale kuréel gi nag mujjul jàll wala arrêté bi mu jul jàll ndax dafa am yenn ci membre yi yu nanguwul woon boobu post wala yu nanguwul woon googu pal ca biir ña gàntaloon na ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ci la bokkoon ci 1916 Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim jot na lettre nag na ci membre yooyu wala nomee nañ ko ci membre yooyu ngir ñuy saytu Afrique ci wàllu diine waaye seexul xaddiim dafa gàntaloon tubaab bi nag wéewoon na nag di def ay pexe ngir boole ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ci googu kuréel seexul xaddiim wéy rek di gàntal googu kuréel waaye tubaab bi nag wéy nag di def ay pexeem saa su ne ngir boole ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ci googu kuréel lu ne nag tubaab bi def na ko ngir sëriñ tubaa seexul xaddiim nongu dem na sax ba mujj gi wut benn médaille ngir takkal ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim jort jot ne su ko takkalee ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim seexul xaddim dana mujj nangu ci googu kuréel médaille bi nag moom lañ tudde woon croix de la légion d'honneur waaye seexul xaddim dafa mel na nag diplôme boobu di croix de la légion d'honneur boobu nag da koo gën a xabtal ngir mu gën a bañ sax kuréel googu texul tubaab bi bàyyi topp na yëf yi ba ci atum 1918 ci benn télégramme bu mu yónnee woon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim wala lettre bu mu yónnee woon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim numéro ba la télégramme boobu wala lettre bi nag ñi ngi ko bind ci le 3 août 1918 ci décret buñ defoon ci le 9 octobre 1918 tuddee ko remise de médaille ngir ñu jox ko ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddiim ci bu ñu eggee ci bëccëgu ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci mois de novembre ci atum 1918 numéro médaille ba moo nekkoon N1501 wala numéro lettre bi ñu waroon a jaarale médaille bi ngir takkal ko ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddiim moo nekkoon N1501 ci décret buñ nommé woon ci bisum 9 octobre 1918 kuréel gi wéy nag di doxandi di xaar ba xam ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim dana nangu waaw a déet waaye seexul xaddim nag wéy rek di gàntal tubaab bi itam nag wéy nag di gën di jéem a naxtaan ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ngir mu bokk ci kuréel gi ndax kat su bokkee ci kuréel gi ñoom li ñu soxla danañ ko mën a am ndax seexul xaddim nag tuutul ci ñaar fukki kilifay diine yi ñu tànn kon mu bokk ci ala budda day nekk nag lu am solo ci kuréel gi biñ eggee nag ci atum janvier ci atum 1919 googu la autorité française yi jël benn médaille nag yónnee ko Sénégal ngir jox ko gouverneur général bi fi woon di Marlin ngir mu jox ko commandant de cercle bu Diourbel di monsieur l'évêque ngir mu takkal ko ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddiim ci njaareem ginnaaw bu Seexul Xaddiim yégée na nag tubaab bi joxe na benn médaille jëm si na Sénégal ngir ñu takkal ko ko Seexul Xaddiim nag bind na ab lettre gouverneur général bi di Marlin di ko wax ne médaille boobu daal moom soxluwu ko tey soxluwu ko ëllëg ko médaille bi mu soxla ci suñu boroom la koy sàkku wala ngën gi mbindeef sallallahu taala la wa sallam waaye médaille yu àdduna soxla wu ko ab lettre nag la seexul xaddim bindaatoon tubaab bi na ngir di leen wax ne médaille bi jirut muy egsi ca lettre ba sëriñ tubaa seexul xaddim bindoon gouverneur général ba ca tàmbalib lettre ba ma ngay tudd suñ boroom di ko sant ma ngay wax ne nag lettre bi mi ngi jóge ci ku tudd ahmadu mbàkke jëm si nag ci yaw mi ñuy màndargal ne yow yaay boroom ndar ak képp nag ku toog toogaayu boroom ndar soo jotee wileew këyit na nga xam ne ci nga bokk nag ma ngay ñaan jàmm nag sax ci ñi nga xam ni topp nañ njubug suñu boroom gi yëgal ne nag man maa ngi sant suñu boroom ci cantug làmmiñ ak cantug xol maa ngi sant nag ci bi ma ñëwee ndar ni mu jëflanteeg man maa ngi sant itim bi ma delloo ci sama ñoñ itim ni muy jëflanteeg man yow boroom ndar nag na nga xam ne li ngay sàkku ci àdduna man seexul xadim awma ci soxla man itim ahmadu bàmba li may sàkku ci àllaaxira yéen amuleen ci soxla na ngeen xam ne yéen ñépp itim bàyyi naa leen ak seen àdduna jooju jublu nag ci suñu boroom itam nag na rafet ci man mii na la leer na képp koo xam ne nii ñëw na wax la lu wuuteeg lii ma la wax nag ci kayit wii ma la bind na la leer na la muy wax du wax ko tub dëgg te itam ab soskat la na la leer ba leer daal na yéen li ngeen am soxla man awuma ci soxla jàmm nag yàlla na nekk nag ci ñi topp njubug suñ boroom gi lettre bi nag mi ngi jóge ci ku ñuy wax Muhammad ibnu Muhammad ibnu Abibullah ñu teewlu lettre bi Sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim bindaatoon gouverneur général bi di Marlin ngir di ko wax ne médaille boobu soxla wu ko lettre bi sëriñ Moodu Maamun ñang bind tudde ko jaar-jaaru ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ca biir téere boobu di jaar-jaari ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim te sëriñ Moodu Maamun ñang bind ko lettre bi ma ngi ca biir téere boobu sëriñ Moodu Maamun ñang sax ma ngi fay nettali histoire bii nii wala lenn ci jaar-jaaru Seexul Xaddiim ci diggante coow lii mu amoon di diplôme buñ ko naroon a jox wala médaille buñ ko naroon a takkal lettre bi Seexul Xaddiim bind ma nga cax ci téere boobu mu tuddee jaar-jaaru Seexul Xaddiim ñu teewlu lettre bi Seexul Xaddiim bindoon gouverneur général bi di Marlin di ko wax ne soxlawul am médaille ndax suñ boroom doy na ko bismillahi rahmani rahim innahu minni ila amiri ndar wa man jara majra assalaamu ala man ittabaa alhuda haada wa inni xaamidun billahi taala wa shaakirun lahu ala maa amaltani bihi min alikraami fii ndar wa baada rujuuci minha فبذلك أعلمك ما في قلبي اعلموا بأن الذي تطلبونه من الدنيا laa xaajata lii fiiha wa anna allazi atlubuhu min alaaxirati laa xaajata lakum ilayha waalamu jamian bi anni taraktu dunyaakum maakum mutawajjihan ila allahi tabaraka wa taala faltatif nufuusakum waltuqirra ayunakum bi anni laa unaasiu ahadan fi cheyin min addunya wa kullu man ataakum bi xayri haada alkalaami fi sha'ni faalamu annahu kaazibun wa muftarun wala taltafitu ilayhi abadan wassalaamu ala man ittabaa alhuda ahmadubnu muhammadubnu habibillahi mbakki lettre boobu la seexul xaddim bindoon Marlin ngir di ko wax ni médaille boobu ñu ko bëgg a takkal soxlawu ko lettre bi nag nee naa leen su ngeen demee ci téere bi sëriñ muudu maamun ña ngi bind te jagleeloon ko jaar-jaaru xaadim rasuul su ngeen demee daa fa fekk leetar bi sëriñ moodu maamun ña ngi itam ci téere boobu ma ngi fay nettali lu bare bari ci jaar-jaaru ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim sëriñ muudu Maamun Ñaŋ yàlla na suñ boroom guddal saw fan te teg loxo te wéral cër yi waaye nag médaille boobu ak diplôme boobu tubaab bi nag mujj na ko indi njaareem jox ko commandant de bu Jurbel ngir mu jébbal ko ku baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim Seexul Xadiim nag mujj na gàntal lii di médaille ba waaye diplôme ba moom jël na ko ndax ci rapport bi tubaab bi bindaatoon seede ne na Seexul Xadiim jël na diplôme ba waaye médaille ba la jëlut ndax médaille ba ab croix la ndax diine mayul ndawul diine di jël ab croix Touba Seexul Xaddim ci bëccëgug la 14 janvier 1919 ci njaareem ci googu ci atum bi commandant de cercle bu Jurbel bi ku baax ki Sëriñ Seexul Xaddim nag nangu woon naa jël lii di diplôme bi ndax da doon xamal commandant de bi di ko wax ne comme gouverneur général bi da nee na bég na ci man ngir jox ma aw këyit danaa nangoo jël këyit wi waaye croix bi nag sama diine mayuma ma laal ko kon nag croix bi moom awuma ci soxla kon loolu moo tax Seexul Xaddim Khadim nanguwul woon a jël lii di croix bi noonu mu ko waxee itam lii di commandant de cercle bu Diourbel ci rapport bi mu def yónnee ko gouverneur général bi itam loola la ca wax na Seexul Xadim nee na nanguwuta jël croix bi waaye diplôme bi moom dana ko jël ndax aw këyit dong la wax jooju nag lii di commandant de cercle bi ak Serigne Touba Seexul Xadim ñu ngi ko séq ci bëccëgug la 14 janvier 1919 ci suba sa di la 15 janvier 1919 commandant de cercle bi bind na benn rapport ngir yónnee ko Ndar ngir wax gouverneur général bi la séq ak Pikine ci bëccëgug la 14 janvier 1919 ci suba sa di la 15 janvier 1919 commandant de cercle bi bind na benn rapport ngir yónnee ko ndar ngir wax gouverneur général bi lan nag la séq ak seexul xaddiim ci bëccëgug la 14 janvier commandant de cercle du Bawal ma ngay wax ci rapport bi mu jox gouverneur général bi yow gouverneur général croix bi nga ma jox loo woon seexul xaddiim ak diplôme bi jox naa ko ko waaye seexul xaddiim nanguwut a jël croix bi waaye jël na diplôme bi diplôme bi nag nee na dana ko jël ndax yow gouverneur général bi dangaa màndargaal ne bëgg nga ci moom comme bëgg nga ci moom sant ko nag dana jël loolu ci këyit woowu nag nga ko màndargaal muy diplôme bi waaye croix bi nag moom du ko jël ndax diine mayu ko mu laal ko wala di ko jël ndax croix bi day màndargaal ne yonenti yàlla Insa dañ koo takk faat ko te lislaam moom gisewu ko noonu ndax lislaam lim gëm ba nëg ni yonenti yàlla Insa kenn faatu ko wala nii ñu ko màndargaare ci croix bi reyewuñ ko noonu te croix bi loolu lañ ci def di wane ne yonenti yàlla Insa noonu lañ ko faate lislaam moom jàppiwu ko ko noonu loolu daal moom moo tax sëriñ bi ne croix bi moom du ko jël léegi diplôme bi nag moom mën na koo jël ndax yow gouverneur général bi da ngay màndargaal ne bëgg nga ci moom lii daal mooy biñ joxee diplôme bi ak médaille bi kii di sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim lii daal la ñu tontu lettre bi nag commandant de cercle du Bawol mi ngi ko bind ci bëccëgug le 14 janvier 1919 gouverneur général bi mi ngi ci jot le 17 janvier 1919 ñu teewlu rapport bi commandant de cercle du Bawol defoon ci diplôme boobu ak médaille boobu ñu jébbaloon Seexul Xadiim muy Savalier de la Légion d'honneur. J'ai l'honneur de vous rendre compte que j'ai remis à Ahmadou Bamba le diplôme et la croix de chevalier de la Légion d'honneur. Ce marabout m'a d'abord déclaré que je pouvais conserver l'insigne et que le diplôme lui suffisait, que c'était un bon certificat montrant que le gouverneur était satisfait de lui. et qu'il était de cette marque de faveur. J'ai décidé, Ahmadou la croix qu'il loolu nag la commandant de cercle du Bawal bindoon gouverneur général bi ngir di ko wax ne loolu nag la seexul xaddim tontu ci diplôme bi ak médaille bi. arrêté boobu nag dañ tënkoon ko ci le 28 avril 1916 seexul xaddim mujj ci bokk waaye kuréel gi itam nag mujj na am ay jafe-jafe ndax mujj. jotul wéy kuréel googu tubaab bi taxawaloon te tuddewoon ko conseil consultatif ngir muy saytu nag wàllu lislaamu afrique occidentale ngir kilifa diine yi fi nekk nag man di ko saytul seen bopp kuréel googu itam mujjul taxaw ndax kilifa yi ci mujj gàntal dafa bari waaye nag tubaab bi nag wéy na nag di teg loxo ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim denc ko nag ci résidence surveillée foofu ci njaareem biñ demee ba ci atum 1921 tubaab bi bindaatoon na lettre ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim di ko wax ne da koo bëgg invité ak ngan ci ndakaaru ngan coow lu méttee métti ci njaareem ndax yenn ci mag ñi dañoo jortoon ne tubaab bi dafa bëggoon a tegaat loxo ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim ba tax na mag ñi kenn ku nekk nam ko gisee woon waaye commandant de cercle du bawal di xamal mag tubaab a juboo ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim ndax seetlu na ne ci atum ba nëga ni ay jafe-jafe yi neen moo nekk ci diggante tubaab bi ak sëriñ bi ndax coow yu bare baree bari jaar na fi te coow yooyu lañ bëgg mu fay sëriñ bi daal xam ne ñun xaritam lañ moom itam mu xam ne suñu suñu xarit la fukki fan ci mois de août ci atum 1895 ba ñaar fukki fan ci mois de septembre ci atum 1902 sëriñ tubaa seexul xaddim mi ci suñuy loxo mu toll ci juróom ñaari at fukki fan ak benn ci mois de novembre la wàcc ci gox bii di ndakaaru ci atum 1902 ci atum 1903 ba di at ma ca topp ca fukki fan yaa ñett ci mois de juin tegaatoon nañ ko loxo ngir yóbbuwaat ko nag ci réew mii di gànnaar ngir mu nekkaat fa ca beneen résidence surveillée ci diirum ñeenti at ba ci weer wi di mois de juin 1907 ñu doog ko faa jëlee indiwaat ko ci biir réew mi waaye ba nëg ni rek ñun ñoo ko teg loxo ci dëkk bi di Thiéyène jolo ba ci mois de janvier 1912 ñu doog koo indi njaareem ci beneen résidence surveillée coow yooyu daal ak jaar-jaar yooyu daal la ñu bëgg sëriñ bi fàtte ko ñuy tim ñu fàtte ko lii rek moom moo tax gouverneur général bi di Marlin doon sàkku ci ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul di mu ñëw ganesi ko ci Ndakaaru lii rek moom mooy sababu ngan gi lii la commandant de cercle du Bawal di monsieur l'évêque waxoon lenn ci mag ñi wala bokk li mu waxoon mag ñi ngir ñu xam ne sëriñ tubaa seexul xaddim tubaab bi tegaatu ko loxo loolu nag lañ bëgg coow loolu daal fay moom moo tax rek Marlin di invité ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ci dëkk boobu di ndakaaru ngir mu am focc ak ngan lii rek la koy doyee lettre boobu gouverneur général bi bindoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim mu nekk ab invitation ci dëkk boobu di ndakaaru numéro lettre ba wala numéro télégramme ba mu ngi nekk n 1363 n 1363 du 24 novembre par gouverneur Marlin ca biir lettre ba nag ñu ngi ci wax ne Serigne Touba Seexul Xaddim war naa déparé ci bëccëgug le 27 mars 1921 ci dëkk boobu di njaareem war a jógewaat ndakaaru pour ñibbisiwaat nag ci dëkk bii di njaareem ci bëccëgug benn fan ci mois de avril ci atum 1921 numéro télégramme invitation boobu ñu ngi ko dugal ci boîte postale 591 Seexul Xaddim nag mujj na dem ci wàllu invitation boobu ci ndakaaru wuy ji Marlin ci palais présidentiel bi Macky Sall nekk seexul xaddim am na fa ñetti fan ca ngan ngoogu di ndakaaru keroog ba muy dem seex mamudul mustapha mbàkke mi nekkoon ab taawam ak maam seex anta mbàkke di rakkam la àndaloon ab oto moo ko jëlee njaareem ba ci dëkk bii di laay ñaar mu xaar fa saxaar gi dem ndakaaru ci la ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim sàkku woon ci seex mamudul mustapha mbàkke mu jënd kërug défoncé gi lool moo waral kër sëriñ bi am ndakaaru ba ñu eggee ndakaaru itam ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim sàkku woon bi mu yónnee ko sëriñ ngir mu fekke si jataay ba sëriñ Balla Coro itam mujj na fekki ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ci lettre bu gouverneur général bi bindaatoon commandant de cercle du Bawal di monsieur l'évêque ngir mu jox ko sëriñ Balla Coro di ko wax ne sa mag ja Seexul Xaddim na ci daar daar bi bi tubaab bi ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim lañ séqoon ca waxtaan bokk na ca tubaab bi di xamal ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim di ko wax ne sant nañ la gërëm nañ la Seexul Xaddim di xamal tubaab bi di leen wax ne bu wala ngeen gërëm mën da dana ma jaaxal lool ndax musu leen maa digal lu ma def musu leen maa tere lu ma bàyyi waaye man mii di xaadim rasuul man maa leen di sant di leen gërëm ndax yéen ay escalier ngeen ci man ngir ma dem ci suñu boroom kon santaat naa leen gërëm naa leen ak yeneen ak yeneen yuñ séq ndax tubaab bi juboo ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim la bëggoon keroog bi ñu jógee ndakaaru seexul xaddiim ànd naag maam seex anta mbàkke dem ci dëkk bii di gaawaan gaawaan googu sax am na fa ñaari fan wala ñetti fan ngir doog a dellusiwaat njaareem xaddim wéyal ak nekkinam ci njaareem ba ci atum 1927 ci fukki fan yaak juróom-ñeent ci mois de juillet ci atum 1927 boobu seexul xaddim wuy ji suñu boroom ci dëkk boobu di njaareem ñu indi ko ci dëkk bu sell bi di Touba di dëkk bi mu gënoon na bëgg te fonk ko ñuy ñaan ci barkeb xaadim rasool yal na yàlla saafara metti mettim réew mi te def